bamba jago xulwa rasin danoona jërëjëf Seexi bamba yaa mata àndal ku la am dootul ñàkk bay xaaraani yaa defal Seex jërëjëf Seex Ahmadou Bamba Xaadim Rasuul ngacce ngalaama si ahmadou kara mbàkke noreyni jaraw lake maam cerno biraay mbàkke noreyni waaw maanaam ñoo ngi sant yàlla di julli soyante bi ci barke si ahmadou bamba xaadimu rasuul di ñaanal suñu jàmbaar ji maam cerno ibra faati mu yàgg fi loolu te wér ñaanal tamit suñu jëwrin bi nga xamante ni moom moo yor liggéey bi ci zone treize muy Serigne Ousmane Diouf ñu ñaanal tamit mu yàgg fi lool lool lool waaw maanaam mbokk taalibe yi tey lii dañ koy def chaque année année bu jot maanaam dañuy joxe ay ndogu fii lañ koy defee na ci caarooy sam-sam muy mi de kër boo xamante ne dañ koy def maanaam ci anam boo xam ne anam bu sell lay doon anam bu tegu ci ak taalibe lay doon waaw maanaam ndax sëw ramadan weeru ko dafa doon weer woo xamante ni weer wi gën a màgg ci weer yi la weer weer wi gën a doon weer wi gën a tedd ci weer yi moo tax bu ñëwee rek faaw ñu jël suñuy xéewal jël suñuy doole suñu jaamu yàlla ak lépp daal ñu tënk ko tamit ci maanaam di joxe ay ndogu di teral mbokk talibé yi fep fuñu mëna né ak julitu yalla yi waaw non nak lañ koy défé ci gox bi ya nga gis soxna yi ñepp ci gox bi lañ dëkk mbokk talibé yëpp ñëw nañu mbokk talibé sax ñi ngi gëna ñëw kon ci kanam tour dañuy gëna wëyel liggéey bi xana rek ñu dox ma euh, wax ak jëwriñ Papis Kara di sante yalla suñu borom di julli ci yonent bi ah bis bi mom Lamine nga ni daw yalla dafa def non ñi ngi fi won daw fekkee ren dañuy xam sante yalla la waaw ñu xam ne rek maanaam ni mu demee nii dañuy ñaan ku tedd ki ful ko ndax sam-sam dara jomb leen wax dëgg yàlla lamin kan jomb ko ndax ci sëriñ bi gi kafe gi moo ko sabablu ni am si ndigal nag muy suñu jóorin bi taxaw waaw di ko déglu nag si ay ndigalam du moytu tan ay teram lu si ndigal rek tan ni def ko lu mu si tere tan bokk waaw kafe gi ñu koy def nekk du xaalis nit ñi lañ koy defee suñu poos lañ koy defee waaw suñu poste lañ koy defee ñu nag ñëpp du man du kenn ñi maanaam ñëpp ñëpp rek kenn képp képp koo xamante ne mi ngi si kon mel ñëpp siy jàpp mi kër yi ñu sekk yëpp yëpp yëpp ñu jàpp si café gi waaw. waaw fii daa daara ji la ñu ngi ciy sant bu baax a baax gis nañ taxawaay bi vraiment maasale nañ ñëpp amul murit amul tijaan amul xaadir amul laayeen ñëpp a ngi si waaw kon nag ñu ngi jaajëfal jëwriñ bu baax a baax. incha allah yoonu Serigne Touba moom ki amul tànk ginnaaw tànkanam dong am te bu sow yàlla dañuy dem. di bég tamit ci yaay faali fi toog yëpp soo ba tey bàyyi seen liggéey ni ci waañ bi nii. ñun ñu ngi lay ñaan yàlla na Serigne Touba fay seen xol. dañoo ngi ñaan yàlla nag mu koy def chaque année ñu koy fekke ñun ñëpp tal ko te wér ko. di sant jëwriñ ci jëmm sëñ Touba bi may liggéeyal nag ca Gabon li tax ma bëgg sëñ Touba Gabon laa ko njëkk a liggéeyalee ba pare soog a ñëw fii liggéeyal naa ko lu nekk dama ko bëgg ci sama xol ci jëmm sëñ Touba. mais comme ko tey moom dem nañ tey bay commencé jënd nag di jënd ay xar kooku dañ koy sànnee sëriñ Touba bu wér. waa loolu moom yokkute rek la. waaw yow moom lu ñu nekk moom nga jàppale ñu si. suñ bis day mel sa bis te bis bi ñun ñëpp a ko bokk mais démb ba léegi yaay fi démb bala ci fu nga faan ba fa yat te soo ko ñëwee yaram li def dara ñu sant la dan lay sant rek yàlla man coono fayal ko man coono incha allah mu ne ma bokk bay fal baaru di gol fa yàlla di ngay gaabal fa borom di gal fa feeñoo yàlla duy ngay ngabal faal Ibrahima faal na xadi faal yaa ko moom Ibra faal yaa wane Bamba Ibra faal yaa wane Bamba yaa nit ba tax mbar fee jaraw lakkee maam Thierno Birahim Mbacke jërëjëf tey moom suñu xol sedd na lool wax dëgg yàlla ndax lii tamit maanaam tey buñ nee dëkk bi suñu kilifa gi nga xamante ni moom la ñu yàlla booleel ci gox bi muy suñu monsieur le ñun mu déplacé wu rek mu jóg rek ñëw rek mu déplacé wu rek dafa rëy si ñun ndax moom tey buñ ne woon tey dëkk bi kan mooy buur bi dañ naan moom mii mooy buur dëkk bi bu ñu ne woon buur bi dëkk bi tey kan mooy buur bi dañ naan moom mii mooy buur dëkk bi kon lii dafa rëy si ñun moom nag wax dëgg yàlla yàlla moo ko baaxal moom loolu dafa yàgg ndax ba ma koy xam man du tey yàgg na ñu bokk dëkk benn gox testo mu doon ku baax première ngan gi nga xam ne sëriñ bi dafa may setti fii ci dëkk bi Caaroy Sam Sam muy maam Thierno Birahim boobu faw ma seede ko ne boobu moom nekkul sax maire. yàlla yàlla tudd na ko waaye boobu dogal bi jotagul. ma gis ko rek mu nekk suñu mag nekk ñun si gox bi doon ku baax. ma jóg ànd ak mbokku taalibe yi dem fa. fekk ko këram wax ko ne ko dañ lay invité ñoo bëgg nga ñëw yëkkati suñu enveloppe suñu lettre soutien jox ko fàtte naa ko. ci bés bi mu woo ma téléphone na ma Lamine foo nekk ma ne ko maa ngi ci baas bi ma ñëwalee kër ga ma ñëw mu yëkkati xaalis bu bëri def ko si enveloppe jox ma na ma lii man maa ko barkeelu ci bés bi. maanaam yaakaar naa ba at ba dellu si waat maanaam moom bal bi tàkk na te loolu man tamit wax dëgg yàlla dama woon yéene jour bu sëriñ bi ñëwee maanaam ma yeggee ko ko sama sama yéene boobu sama xol suñu borom da koo matale bés boobu. te man yegg naa ko sax ku baax ki ci biir baas waaye jëmmam yàlla def jour boobu ñëwul waaye loxoom dafa teew ci ñun te boobu nekkagul sax maire kon tey bu suñu borom demee ba indi ko te moom ñun ñu xam mbaaxam bu baax xam ni mu mel ci ñun xam ni mu ñu bëggee kon ñu ne amuñ tam lu dul maanaam àndandoo jàppale ko ànd ak moom dooleel ko kàttanal ko ngir jëmi Serigne Touba fii suñ dëkk bii wax dëgg yàlla ku koy defar ñun moom lañ xam maire yi fi jaar bëri na xamuñu leen sax mosuñu toog ak benn maire fii ci dëkk bii mosut am Caaroy Sam Sam commune commune jàmm ngeen si ak mbaaw lii ñu ngi koy doog a am mi ngi doog a am ren dafa jóg fekk mbokku taalibe yi xeebul kenn fu mbokk taalibe nekk tey ci Caaroy Sam Sam commune bi fekk na fekk na la fa jox la kafe tubaa jox la suukar jox la ay xéewalu yaatu ne leen defar leen kafe gi jox leen mbokku taalibe yi waaw loolu dafa rëy. loolu dafa rëy ci ñun maanaam ñu ngi waajal nag loo xamante ni dañ koo bëgg delloo njukkal moom mi ñun kullu Baay Faal kullu laax yi nekk Caaroy Samsam commune bi loolu waxtaan nañ si moom ba pare ñu ngi koy dox dañoo bëgg a organiser boo xamante ni journée delloo njukkal suñu maire Coumba Ndoffène la ndax lim di defal loolu nag kun fayakun la ndax li ñu def dañ koy def te yàlla tax maanaam tey ñu jël tey ay xéewal taxaw yorey këll di màjjal nit duñu romb duñu jox ay cent franc ay juróom ay yooyu maanaam loolu sax du dara geste bi rek lañ lañ soxla waaye mbokku taalibe yi maanaam li li ciy dem lépp ñoom ñoo koy génne seen poos wallaahi ndax ñoom ñëpp am jom xale yi caaroo Samson commune bi dañoo am jom dañoo bëgg liggéey dañoo bëgg waaw góor kenn ku nekk da ngay naf nafi di jaayante boo xëyee ñi ñii ñi ngi ci sareet yi ñii ñi ngi ci maçon bi ñii ñi ngi ci tôlier bi ñii ñi ngi ci ambulant bi ñi ngi ci lépp man sama daara moom fii amul sëmër ñoom ñëpp bu ñu xëyee seeni i pour moyen danañ jóg dem jaayante ji te tamit bay si sa weewu tànk doo toog rek naan yàlla yàlla yàlla yàlla yàlla bay tool kon moom dañ ko beral cant boo xamante nii day am fu mu tàmbalee waaye du fu mu yem mu le maire yàgg sa délégation bi nga àndal yëpp amuñu seen fay suñu baay bi tamit muy baay Birama Thior di ancien gloire ñun mun ñu ko fay ndax njabot gi yeb njabotam lañ këram a ngi ni dafa dafa tiji keur gi and ak ñun domam yeb ñu ngi ci daara domam yeb ñu ngi ci liggey bi tay buñu waré dem fenn sax xalé yu jigen damay ñew di leen tagul suma ma da nan ma man dal lima bëgg moy ñom nañ jubal nañ teggu ra ci yoonu Serigne Touba demal ak ñom damay and ak ñom darul mukti damay and ak ñom Touba damay and ak ñom fu ne ci aduna xalé yi te ñom duñu wax dara duñu sekk duñu def dara buñ demé tam def lu rafet liggéey fa liggéey bu rafet àndandoo ñun ñëpp ñëwaat ci jàmm kon Baye Birama Thiodaye lay ñaan yow nga yàgg fi loolu te wér ndax lii nii wax dëgg yàlla yombul kilifa nga kilifa nga ci gox bii fii monument nga fi ñun xam nañ ko bu baax yaa ngi tàggat xale yi ci écurie bi di leen di leen di la tàggat loo seel seel yaram di bëgg ñoom ñëpp nekk ay champion tey ci ci arène bi lépp yaa ngi koy liggéey kon nag suñu maire baa ngi nii ñun ñëpp dañuy maase ànd ak moom jappalé ko dolel ko fii goxam la li nane maire ay deuxième mandat man goma loolu man fay tok man mom xola ba kéro yalla fi jëlee man loolu gëm te loolu laay ñaan amul ay ay mu tok fi ki benen dedet da fay tok ba yalla dal mom num ko way ñun dañuy fassé and ak yow ñun lañ pare ñun pare nañ fep gor yalla yi fi nekk ak soxna yi gor yalla yi ñëpp pare nañ suñu jëwrin ki nak mo suñu jëwrin kii borom daaroo ko teg suñu kanam maanaam mu yor Sénégal gépp li jëwrin du jëwrin yépp muy Serigne Ousmane Diouf lu ñu nekk mu bàyyi lépp ñëw bàyyi lépp ñëw jëwrin yi ñu ngi ñëw jëwrin yi nga xam ne dama nekk ak ñoom ci gox bi ci commune bi ci zone bi ku nekk yor mbooloo ñoom ñëpp bés bii tey ñoom ñëpp dañuy ñëw. xale yee na ñor xale yi ginaaw xale yi nga xam ne dañ fi bàyyi ëllëg ñuy magi ëllëg bi dëkk bi ñoo na ñor xale yi ku leen taxaw ba mettre leen dans les loolu ak jaamu yàlla gu mag la te nduuf da cee taxaw da cee tegub tàkkam ñu ngi koy wane kon maire yëpp war na noo mën a roy ci yow yow ñëwoo pour benn pouvoir nga jox la rek nga jël pouvoir bi di ko employé à ta façon dangaa ñëw joxe sa bopp askan wi te lii lii la lii la ñuy soxlaa nit saay nit dangay ngay teey nit dangay ngay teey parce que Ndoof ñëpp la fi nekkal mm. Sénégal gépp la fi nekkal mais su fekkee ne jëli man maa ngi nii enfengul war laan doo xam ne ma salaamaaleykum maaleykum salaam salaamaaleykum maaleykum salaam taalal loxo déedéet li ñuy wa war a jox toujours am nañu ko kon doo fu fekkee ne dugg na fii ngeen wax ne alors de ngeen koy jàppale gor ca wax ja eh, terrain bi kii wax nii man la ko waxal man man dama war a am terrain boo xamee dama ci entre entraîné xale yi jigéen yi saay bu ñuy def dara def ko te ndoof baax na parce que ci dëkk bi laa ne mais damay dégg ndoof la mu def ndoof la mu def mais dañu ñeme dafa ñemewul su leen defalee lampa dafa ñemewul mais su fekkee ne taxaw ngeen carrément ne ndoof kay dina leen defal lu ko ëpp parce que am na ful la. Ndofène dafa war a nekk leneen ak leneen suñu boroom. bu ko dina ko def ci xolu Macky Sall def ko ko. élection locale législative yi député dañ doon yaakaar ñu def ko député ñu ñëw defuñu ko ko ñu génn di kaas ñu jotagul. tama ku ko jàppale jàppale woo sa bopp nga jàppale parce que xam nañ ndaw la am jom nangu na liggéey xam fan la war a teg ñu di sant borom Touba di tamit euh, yal na ko fi yàlla yàggal lool lool te di sant euh, ñu fi fekk ñëpp di nuyu kilifa yi ku ci nekk sa tur sa sant di ci jiital suñu papa suñu suñu xarit euh, Jali Birama Thior nekk suñu référence mais aussi nekk suñu modèle ñun ñi nga xam ne ni ñun ñooy jeune commune u Diamaguène Sicap Mbao mais aussi jeune Sénégal yëpp Pa Jali ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay sant ñu ngi lay ñaanal vraiment yal na yàlla guddal sa fan yal na la yàlla yàggal lool suñu kanam yàlla may la wér aussi parce que gis nañ sa taxawaay ci askan bi gis nañ sa taxawaay ci ci jeunesse bi gis nañ aussi sa taxawaay ci sport bi vraiment ñu ngi lay ñaanal vraiment yàlla gën a dëgëral sa taxawaay di nuyu tamit suñu suñu jëwriñ suñu xarit suñu suñu soppe sëñ Ousmane Diouf jëwriñ ñu ngi lay ziar ñu ngi lay bëggee lool gis nañ ne vraiment saa yu gars yi wootee yaa ngi ñëw teew loolu nag du lu yomb su ñu xoolee kuréel yi ngay coordonné yëpp te vraiment fu suñu gars yi wootee ñu gis ne suñu wet vraiment dañ ci sant di la ñaanal di di bëgg di ñaan yàlla gën a dëgëral taxawaay bi. di nuyu tamit suñu jigéen ñi ñu fekk ñoom ba ñoom Soxna Seli Soxna Ndey ak ñëpp vraiment euh, di nuyu aussi jeunesse bi jeunesse su quartier bi ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziar. suñu xarit aussi Michel ñing koy ñing koy nuyu aussi diko sante sant diko ziar di rafetlu aussi euh mbeur aussi ñing lay nuyu amul ñing lay ziar bu baax dila la ñaanal yàlla yalla defar mbir yëpp suñu borom jàppale la vraiment ba fi nga bëgg egg ci sa carrière ya ko xam suñu borom defal lako du nuyu tamit wa daara ji vraiment commencé commencement ba fin vraiment amul ben exception ku ci new ñi ngi lay nuyu fi nga nek ñi ngi lay sant ñi ngi lay ziar ah di beral yoo nag vraiment suñu suñu frère nekk suñu xarit nekk suñu wóllëre muy jëwriñ Lamine Lamine vraiment ñi ngi lay ñi ngi lay ziar bu baax ñi ngi am mbégte lool vraiment ñëw teew fii ci bés bu màgg bi nga xam ne nii moom nga woote fii ci Sam-Sam euh, bettuñu ci yow parce que vraiment bi ñuy xamee loolu yàgg na ba ngay organiser tamit ndaamal daa borom daaru di fi ñëw yàgg na li nga ko wax rek boobu xamoo woon ndax dinaa nekk maire Eh, ngeen ñew sama kër jox ma lettre de soutien dafa na demone ngeen ba faté ko man ma len wo ne len indi ngeen fi lettre de soutien ka len jël ngeen ki yeen aussi bo ba légui vraiment ñu gis sen taxaway ngeen te ba légui bawu len aussi eh, seigne Lamine ñing lay ñing lay ñing lay sant yaak vraiment mborom daar yëpp ak kurel bi yëpp ñing len di ziar ñing len di sante di rafetlu vraiment aussi manif activité bi ngeen def tay vraiment muy activité bu am solo bo xam ni vraiment ñun sax daf ñoo xaw a bett ñun dañoo jàppoon rek ah comme ni ñu ñuy def fenen feneen dañu ñëw rek and joxe café yeewee ko mais biñu ñewé vraiment liñ fi gis ci mbolo liñ fi gis aussi ci ay ay ay ay ay ay ay xéewal vraiment dafa dafa xaw a vraiment ñu leen ciy sant bu baax di leen vraiment japp nañ ci note bu baax inshallah allah dinañ ñaan yalla dewen ah. mu mu gëna soppé té comme niñ ko war seigne touba amul tanki ginaaw donc vraiment am nañ ñu yaqin na inshallah aussi lool dina mëna avancer euh adja nday ngom aussi ñing lay nuyu sama jigen sama sœur la don ku ku bax aussi diko diko ziar mom jigen ñi mu andal ñep ah affaireu terrain bi aussi vraiment dégg nañ ko doléance la bo xamni ni vraiment niko suñ dewriñ waxé seigne ousmane lu war am la ah mu melni moom poser na débat bi ah léegi nag ñu ñëpp ñu xol espace bo xamné ni gis nañ né vraiment mëna def lolu ñu ñu xol jëm ko xol légui identifier ko jëm ci and pour mëna défar ko mu mëna nek nekk bërëb boo xam ne suñu amé ay manifestation wala courriel dañ ko fa def mais aussi écurie bi aussi bi xamné aussi euh, Jali Birama Thior mom la yor difa mëndi mën entraîner donc euh, Pa Jali dañu teg loolu sa loxo ngeen jëm ko xol parce que yéen gëna xam sen koñ yéen gëna xam ruq yi ngeen dem ko étudier xol vraiment lepp lo xam ni mën nañ ko ci taxaw espace bo xam ni dina yaatu dinañ ci mëna def ñu mën ci taxaw ñu and ci yéen vraiment di di di di di gërëm ñëpp di sant ñëpp euh, di ne daara ji vraiment bég nañ contane nañ